la cere sa gul weddi gis bokk ci gis nga tàmbay gis nga tamsiir li mu def tàmbay yaa ngi gis tamsiir xoolal lii la def tamsiir ba ngi nii xoolal ayda kaay leen maaxa di Aïcha kaay leen xool na ñépp ñëw kaay leen xool tamsiir kaay leen xool ko mi ngi Eh, eh, eh, taxawal fe fe fe fe sur place sur place kaay leen ñëw leen na ñëpp ñëw weddi gis bokku ci gis ngeen tàmbay gis nga tamsir li def tàmbay yaa ngi gis tamsir xoolal lii la def tamsir bi ngi nii xoolal ayda kaay leen maaxa di Aïcha kaay leen xool na ñëpp ñëw kaay leen xool tamsir kaay leen xool ko mi nii d'accord, Fais, fais, fais, fais. sur place sur place Kailen, n'y a pas de profil gauche Tamsi, profil gauche profil droit Tamsi. droit Passe. Passe, face Tamsi. allez jëlal de de au cachot <laughs> ah, Et je suis choquée. Regardez ce qu'elle a fait à ma voiture. Regardez, j'ai été faire mes courses. Elle a <laughs> pris des yaourts. Elle les a ouverts. Elle m'a fait ça. Vous avez vu ce qu'elle a fait Non mais là, c'est grave quand même, non laa ilaha illallah muhammad laa illallah kii Tamsir la may kii Tamsir la may mais lii dafa xew wala Mohamed Mohamed eh, eh taxawal eh taxawal taxawal taxawal taxawal eh taxawal yow dafa bàyyi ni Mohamed eh, aywa ay ay magi waaw mag yaa liggéey nii sa bopp magi kaay eh wil kaay taxoy sama yaay bu ko mar Tamsir part en exil Tamsir part en exil mu ngi nii bagage yaa ngi nii day exilé wu nii ndax dafa sonn ci gaay yu ngay yàq yu teg ci deram weddi gis bokku ci gis ngeen tàmbay gis nga Tamsir lim def tàmba yaa ngi gis tamsiir xoolal lii la def tamsiir bi ngi nii xoolal ayda kaay leen maaxa di Aïcha kaay leen xool na ñépp ñëw kaay leen xool tamsiir kaay leen xool ko mi ngi nii eh, eh, eh, tax fe fe fe fe sur place sur place kaay leen ñëw Us. mbokk yi li moo nekkoon li gënoon a fës ci xibaar yi dañu ci def asfatel rek nga xamante ni moo di Tamsir mi nekkoon seen kër di yàq yàq gu métti moom nag yoon mujjee na ko teg loxo instant bi ma nga ñu téye ca police ki nga xamante ne moo di avocat ma mi ngi sàkku ñaan ñu bàyyi ah, client lam bi mu dem ñibbi ndax li ñu koy toppee kat daanaka